yaa ayatuha nafsu almutmainna turjicii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi cibaadi wadxuli jannati wala taxsibanna allazina qutiluu fi sabilillahi amwaatun bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun farixiina bima aatahum allahu min fadli ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di jagleel ab nuyoo nag waa ëtt bu tedd bii nga xam ne ci laa toog nii tey muy ci kër sëriñ Touba mooy kon waa kër sëriñ Touba waaye nag di ko àggale ba ci jullit yëpp di fas yéene waxtaan jottali kàdduy seere ci ponk bu mag mag boo xam ne ponk la woon ci kër gi nga xam ne fi laa toog tey muy kër sëñ Touba kër sëñ Touba nag buñ ko waxee mooy yoonu murit ponk boo xam ne yàlla dogal na day mel ne bis ni ki tey ci talaata la génnoon àdduna ginnaaw bi nga xamante ni mission matale na ko sëkk sëkk sëkk sëkk ba buñ ne woon sax mën nañ cee dolli ñu ne dolli na ci kooku mooy sëriñ Mamor Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke moom xaadimu rasul yàlla dogal mu jóge fi ci fan yii bis ni ki tey muy tiis wu dal ci àdduna sépp nga xam ne day mal ne rek mënees naa wax li nga xam ne bi nga xamante ni Abbas nekkoon baay bu ndaw ci yonente bi jóge na fi eh, doom njabootam toogoon di nangu njaal mi am na arab yi bu ñëwoon ne ko woon waxoon leen ne leen isbir nakun bi ka saabirina wa innama sabru raiyati inda sabri rasi xayrun min al abbaasi ajruka baadahu wallahu xayrun minka lil abbaasi dafa ñëw na leen lii de metti na diis na waaye nag yéen muñ leen ñun ñëpp danañ muñ na ñëpp muñ na kilifa yi muñ na taalibe yi muñ njaboot gi muñ te nangeen xam na day tiyaaba ji ngeen di am bu ngeen muñee Abbas mii ngeen ñàkk moo gën fuuf ci yéen ca ngeen xam ne it yàlla moo leen gën ci Abbas fuuf ca yàlla soxla ko rek la ko indee kon nag loolu rek laay wax njabootuk sëriñ Mamor Mbakke njabootuk sëriñ Mamor nag yaatu na lool comme ni ma ko waxee rek mooy yoonu murit mooy lislaam jéppit ndax ñëpp la fi nekkaloon waaye nag al aqrabu awla ku gën a jege yaa gën a yaay kon maa ngi koy tàmbalee ci njabootuk boppam waaye kàddu yooyu laa leen di wax keneen ki waxoon bi mu jaale la mu waxoon rek laa ciy waxaat naa inna muazzuka la anna ala siqatin min alxayaati walakin sunnatu diini falal muazzi bi baaqin baada mayitihi walal muazza wa in acha ila xiini ñoo ngi leen di jaale donte wóor nañu ne danañ fi jóge ak lum yàgg-yàgg ñun ñi leen di jaale de danañ ñu jaale waaye nag ñi ñuy jaale it nekk noonu danañ nangu seeni njaal kon day mel ne lii mooy sunnatullahi fi xalqi euh, sëriñ Mamoor moom nga xam ne manes na cee wax ci moom bayit wi nga xam ne moom la mag ñu baax ñi daan seere ci maamam yu tedd yooyee muy sëriñ bu soobe muy Mamoor Anta Sali muy turandoom bay di nga xam ne daanañ ko seere ci ñoom manes na ne sëñ Mamoor manes naa wax ci moom loolu mooy jamaa shajaata wal xudua li rabbihi maa axsana al mihraabi fi l mihraabi nit ku baax a baax am na bayit wu mu tànnoon danañ ko wax ci biir waxtaan wi xam naa nga xamante ni da ko defoon chiaaram ndax am na mbootaay goo xamante ni gu am solo ay sëti sëriñ Tuubaa ubbi woon ko moom moo leen joxoon bayit wii ne nañ ko def muy seen shiar muy seen symbole wajaal bi jaahil Moustapha xayaati riayatal qurani zil ayaati yow yàlla sëñ Tuubaa ma wax bayit woowu maa ngi lay ñaan ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sama dund gépp di sàmmoonteeg alxuraan di liggéeyal alxuraan rek ak li aju ci alxuraan waaye day mel ne sëñ Mor sëñ boo xamee bayit woowu nga xam ne tànnoon na ko ca ma dégg ko ci noppam Euh, ci làmmiñam euh, gis day mal ne rek bayit woowu moom moom la tànnoon ne moom lay liggéey kon loolu ci la nekkoon euh, muy lu metti lu diis yàlla dogal bi muy am fekkoon ñu ci beneen liggéey ca réew Mauritanie ci ndigalul sëriñ bi Cheikh Mamadul taxa mi nga xam ne tey kuy am lu la metti ci lii xew ci sëñ Mamor moo la ci jiitu kuy wéet ku sëñ Mamor di wéetal moo ci jiitu ndax jàpp naa ne doy na sëkk moom bokkoon na ci ñi ko gënoon a jege bokkoon na ci ñi ko yoral cër bi nga xamante ni mënees na ne moo gën a tedd ci lépp ndax nit ku la denk alxuraan dénk la waa kër alxuraan dénk na la li nga xam ne moom la gën a fonk ca xam ngeen ne nag sëñ Touba moom alxu léppam alxuraan la kitaabuhul azizu saara wirdaali alxuraan mooy léppam min alxaqi jaa alxaqu lil xaqi fi saxbi bi xaqin mubiinin laa yuaanihi min min saxbi lim wax ci alxuraan lim def ci alxuraan kiimaan la alxuraan rek mooy léppam kanzil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamoo fiddatin wala jamoo zahab kon xam ngeen ne kuñ tànn dénk la alxuraan denk la lu aju ci alxuraan dénk la xam-xam xam ngeen ne kooku fonk nañ ko waaye xam ngeen ne kooku am nañ ci moom yaakaar te loolu lañ dénkoon sëñ Mamor waaye nag dañuy wax ne iza urifa sababu batala al ajab ku xam mbir ni mu mën a demee rek doo yéemu mooy sëñ Mamor ku ko xam dëgg-dëgg xam doo yéemu ci moom sëñ Mamoor doomi charia la ak xaqiqa euh, boo delloo woon xam ne foofu rek wenn charia ak xaqiqa la nàmp ci la juddu ci la ndeyu ci la baayu ci lañ ko yar ci lañ ko jàngal muy ñaari wetam yëpp cheikhul xadim cheikh Mamadul Fadil radiallahu taala anhu maamam ji it sëriñ yéeri jaxate it nekk noonu jàpp naa ne ku ne xam na ko xam na li nga xamante ni noonu la demee woon kon day mel ne moom noonu rek la mën a mel euh, ya loolu tax it dégg naa ci sunu kilifa gu baax sëñ Alxaaji Mbàkke Jaxate mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xamante ni sëriñ Mamoor ci ñi ko waajal ci ndawam sëñ Fàllu waajuram boole woon leen nga xam ne day mel ne sëñ Mamoor boo ko xamee da nga xam ne bokkoon na ci ñim jàppe ay sëriñam sëñ As Jaxate jiitalutoon kenn teg ko ci euh, maa ngi joxe rek mel ni firnde ku jege woon sëriñ Mamor sunu mbokk mu baax sëñ Ilimaan Gay junj na ma ne bis bi fi sëñ Mamor jógee de li xat-xat yónni na ko ci sëñ Alaaji Mbakke Jaxate moomu xam ngeen ne loolu day tegtale ci ne cër bi mu ko joxoon kawe na waaye sëñ Aas moomu sëñ Alaaji Mbakke Jaxate moomu gis nga bokkoon na ci li muy wax danga ci déggee rek ne sëñ Mamor sëñ Fàllu moo bëggoon mu mel nii. ndax moo jël àlli bind ci lañ war a njëkk bind ci àlli wu jox ko dalal ko ba mu demee bay jàng xam-xam it sëñ maam moo doon wax ma ci làmbiñam ne sëñ Fàllu moo ko jëndal téere bi risaala gis ngeen lam bind ca risaala ba risaala ba bu tey jii ku ci waa kër sëñ maam ko fa fekk ña ngi ko yore xam ngeen ne day mel ne kon sëñ Fàllu moo sàkku ci moom mu doon nituk alxuraan moo sàkku ci moom mu doon nituk xam-xam waaye nag moo ko ñaanal barkeeb moo ko soññi jàppale ko ci barkeeb mu mu doon ku war a mën a liggéeyal alxuraan war mën a liggéeyal xam-xam ndax fondement dafa am solo ci mbir te day mel ne kon sëñ bi moo bëggoon mu mel nii waaye alhamdulilah gàcce nga laa man ni ko bëggee woon amee na ko ni euh, judd na ci alxuraan yar nañ ko ci alxuraan màgg na di jëfe alxuraan rek màgg na di jëfe xam-xam rek lim jàngoon fe ginnaaw bi mu ci feesee dell yàlla dimbalee ko ba bari na lu ñu taggee ay waajuram cheikhul xadim moo ci jiitu alhaaj Mohamad Fadal Mbakke mi baayam bokk ci ba tey ak yeneen waajur bi tedd yëpp mooy ne lu baax lu muy def ci boppam la koy tàmbalee ba la ko jëmee ci keneen maa ngi ci joxe misaal sëñ Mamour tabax na jumaa yu bari tabax na jàkka yu bari tabax na daara yu bari waaye da ngay xam ne daara yim defar moo ci jiitu mooy moo ci jàngale ndeysaan boo xoolee foto yi nga xam ne sax da ko gis ñu koy tasaare fan yi ci réseaux sociaux yi da ngay gis photo boo xam ne mi ngi ànd ak kenn di ko jàngal kenn ci gone yi day mel ne daara yi. joxu ko rek sëñ daara yi génn ci waaye moo ko tàmbali nga xam ne moo cay nekk jàngale na ci alxuraan jàngale na yit ci xam-xam waaye jàkka yim tabaxit noonu lay demee mooy du doon jàkka joo xam ne da koy tabax ba mu jekk rek mu bàyyi noonu wutal ko ilimaan waaye day doon jàkka xam ne bu dee waxtu yi juróom mooy génn moo ciy jiite waaye bu fekkee dem nañ ba mu doon ajjuma wala yu mel noonu it même bu ko wutalee ilimaani ajjuma it da ngay xam ne moom sappe su njëkk sa mooy ki nga xamante ni moo cay njëkk nekk day mal ne rek Euh, li ko tàggaleek loolu mooy génn gi génn àdduna firnde ji mooy sama mag sama sëriñ Cheikh sëñ Baara Bousso Imaam euh, wax na ma ne ma xam nga xam ne mooy jiite ca jumaam jee ajjuma ji nga xam ne euh, ci jiñ ko ñaanale ajjuma ji jiitu sëriñ maam moo julli si na dend ak moom ba wax ma yu baree baree bare yoo xam ne xew na keroog ndeysaan nga xam ne lool lu muy tegtale mooy jumaa ji moom moo ko defar waaye nag it kenn daawu ko fa jiitu moo daan jiitu ca sàppe sa boo demee këram yëpp it noonu la mel këram gu mag gi mu dëkk jàkk def na fa jàkk moo ciy jiite bu fa nekkut ak njabootam di fa jiite boo demee daara ji fa mu tudde daara ji ca jumaa ji nekk fa noonu la mel boo demee këram gi nga xam ne mooy ndindi ndeysaan ca euh, mu ngi fu mu nit waaye noonu la mel ba tey jàkka ja day mel ne bu waxtu wi moom mooy ki nga xam ne moo ciy jiital boppam day mal ne daal li muy def lu ci lu baax lépp day wane yoon mooy bu ca lu ca lu ca am moo ciy jiitu ko ko ca fekk doo ko ca fekk loolu tax na ba daare xam alxuraan ji ñor ko lool alhamdulilah mu am ci yu bari waaye moo ci daan jàngaleel boppam daare xam yi nekk noonu ñu bare bare bari jàngal na leen ma sama classe gi bi ñu doog a tàmbali jàng ci seenu njëlbeen bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni nañ dem di tëral lu ci moom ay téere ca ndeysaan ci càkkuteefam nga xam ne bëgg gum bëgg lu baax moo lay wax ne deel ñëw ma ma lay tëralal defe naa it nag ñim ko def ci njaboot gi bari na lool kon loolu bokk na ci li nga xamante ni yàlla dimbale na ko ko jàpp naa ne loolu doy na sëkk ab cër bu xaw bu kawe lool muy loo nga xam ne sëñ Mamor euh, def na ko yàlla dogal it euh, ni mu boolee charia ak xaqiqa di def lu baax ca lu baax lu muy digle jiitu ci noonu la ko yàlla dimbalee ba doon murit sadiq doon ku déggoo ak i mbokkam maa ngi wax xis sa boo xam neex na ma lool ci ci xaritam la jóge woon sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Modou Fati xari xaritama lool xam naa ko mu di ko gane si mu jot déggoo nañ lool sëñ Cheikh mos na wax euh, ne jàpp yàgg naa sëñ Maam Mor wax ma at mi ànd wax ma li leen boole waaye mu ne ma mi ngi fàttaliku ñaari seere yoo xam ne neex na ko lool ne ma mos naa nuyu sëñ Modou Boussa Dieng sëñ Modou Moustapha Fallou sëñ Modou ne ko dégg naa Maam Mor sa xarita lool mun sëñ Cheikh ne ko waaw mu ne ko lool di neex na ma lool seen ànd boobu yàlla na yàgg maam Mor moom di suñu rakk sama rakka waaye gërëm naa ko fonk naa ko lool it doy na ma sëkk sëkk sëkk ci lépp sëñ Cheikh loolu neex ko loolu nee na sëñ Cheikh ne mi ngi fàttaliku mos naa nuyuwaat sëñ Baara Alaaji Baara Mbakke euh, moom sëñ Mouhamadul Fadel nee na ba tey mu waxaat ko lu mel noonu ne ko Cheikh digg naa sëñ Maam xarita loolu mu ne ko waaw lool moom sax mu dolli ca lay ne ko Maam Mor de ba ah baax na loolu de ñun ñu di bokkam de doy nañu suñu àdduna doy nañu suñu diine <laughs> loolu mu tax na ba. su ma ko daan gis ñu koy dénk leen ci liggéey kër sëñ Fallou yi mu léeg-léeg nga jot ko mu naan la falaa xëy ndax dañu dajale nangam wala nangam damay ree daf naan ko loolu de man xam naa sabab si ndax ñaari ñi jiite woon kër sëñ Fallou sëñ Modou bu sa jàng sëñ Alaaji Modou Moussa Bakki Fallou ak sëñ Baara de nangoo naa ci nit ku ma doy mu ne ma ku ci nekk de ne doy nga ko ci diineem doy nga ko ci addunaam ma ne ko nag ah loolu loolu mooy moo jafe ma ne ko ku la wóolu rek moo la sonal mënoo ñàkk sonn ndeysaan loolu bokk na ci baat yi nga xam ne sax wax naa ko ko ci lu yàggu dara rek mu di ma nettali Euh, lu lu mel noonu euh, nekk nit ku baax a baax wax na ma ci làmmiñam ne ma ba tàmbalee di jàng ñaar fukki isib loolu bëgguma ko woon wax waaye nag nekkatu fi dama koy wax léegi ngir nit ñi di ci roy ak xam ne yitte ju kawe mi ngi am ba léegi ne ma ñaar fukki isib day digal ma ko man mii ne ma dee ko def ma ne ko sëñ bi man mënuma loolu loolu dafa bari nangam ak nangam mu ne ma mukk defoolu ko gën di farata wax ma ci njariñ yu baree bari yu ci nekk ne ma man mii de ba ma ko tàmbaleek léegi yàgg na wax ma dat bi bi ma ko calculé boobu yàgg na lool da ngay xam ne yàgg naa mel ni loolu maam ëpp na fanweeri at ba mu ko tàmbalee léegi ne ma mosuma ko manqué leeral ma waxtu yi mu koy jàng junjuma yit ne ma bu xawee nar a jafe ci yow nga xam ne maanaam def gi dafa ba jafe wala yu mel ne dee ko defee nii dee ko defee nii moo ma ni nga koy ci bis bi waaye ma xam ne loolu yitte ju kawe mënu ko weesu ak yeneen yi mu ciy boole muy nuuru daara ni muy jaalibatul maraaxib muy xasaayit yu bëree bëri lu ma la ikk fi nii lu ma la wakkaan xaqan ak yu mel noonu waaye sëñ Maamoor baaxaayam tax na ba kum jaxasooloon day mel ne lépp loo xamante ni daana ko def rek day bëgg nga di ko def wax na ma ko ba tàyyee tàyyee ndeysaan mos na maa waxit ki ko digal kenn ci sunu kilifa yi nit ku baax ku mu fonkoon ne ma mos na ne ma moo ko digaloon moo ko ci soññe woon waxoon na ma it lam ko ci dëloon waaye li ma ci gën a neex sëñ Maamoor nee woon na ma de lu ma waxoon ci loolu am na moo day mel ne daal moom moom doy na sëkk ab liggéey loolu nag metti na saxoo doy na sëkk ab liggéey day mel ne it moom lépp a ngi ci lépp a ngi ci biir loolu am na ci loo xam ne waxi biir la neexut a wax ci mbooloo noon la fonke woon yëpp wérdu maaxus wi yàgg na ba ko dee di jafe yàgg na man mi alhamdulilah sant na yàlla bokk naa ci ñi nga xam ne jëlee naa ko ci moom ba ko amee yàgg na wax na ma it ñi ko joxoon bokk na ci kenn ci suñu waajur El Hadj Sëñ Bousso Ilimane euh, daana ma nettali xissa bu neex nee na ma mos naa dem ci wax ak sëñ Saliou xam nga sëñ Mamour ñëpp la jëf leen la jaxasoloon surtout njabootu sëñ Touba gi di waxtaan ak moom ci wérdi wi wane ko ne ko dama ko bëgg ci yow waneen yoon maam mu yeesalaatal ko ko sëñ Saaliwu laaj ko ne ko yoroon nga ko mu ne ko yàgg na wax ko dat bi mu ne ko ku la ko joxoon mu ne ko alaaji sëñ bàyyi sëñ Busu Ilimaan de jàpp naa ne moom ko njëkk a jox sëñ Saaliwu ne kon de daal di ma koy jox léegi ndax wóor na ma ne sëñ ko ko jox ca yitte woon naa am lool silsila mooy boo xamante ni sëñ Fallou la jóge loolu di lu am solo daanaka wax ne ko kon loolu de yow macha allah daan am na baat bu ma ko ci daan tooñe ci loolu nee na loolu la ko wax ci saasa nga xam ne day mel ni sëñ Saliou dafa jël ci moom wérdu woowu dog ko ko yeesalaatal joxaat ko ko loolu lépp ci kawe gi teeg sëñ mun sëñ Mamor la mbokkam yëpp noonu la demee ak ñoom euh, daanaka wax ne ko yow jàngal da ngay jàngale daanaka wax ne ko am na lu ma seetlu ci yow neex na ma ñëpp nga fonk waaye sa mbokki bopp ñoom nga def ay sëriñ ñoom nga jiital mu ne ma ci noo ko xamee ma ne ko ah sëñ bi. xoolal tur yi nga tudd sa doom yi mag yi rek ma ne ko neex na lool sëñ Modou sëñ Moustapha Modou Moustapha Mbacke Fallu sëñ Alhaaji Baara ma ne ko sëñ Jili sëñ Abdul Karim ma ne ko tur yooyu dëgg-dëgg euh, kawe na lool wane na nga ne jàpp nga ci ñi lu xaw a loo xam ne lu kawe kawe la ndeysaan mu tegal ma ci wax ju pëseefu wax kawe kawe euh, ma ne ko nag loolu de leçon la boo xamante ni war nañ ko jànge ci yow nit daal lépp la war a jàpp waaye nag. cër bi ko yàlla féetale li nga xam ne yàlla jox na ko war na ko téye bu baax a baax euh, kon noonu la may la yàlla dogal yàlla boole ñu lu yàgg yàgg ci loo xam ne ci sama ngone la maam boo xamante ne fukki ak nangam la am euh, naka njëkkit ci lu mel nii rek ci lu baax rek lañ doon àndee yàlla boole ñu it ñu ànd sax génn ci réew mi ànd nañ aji màkk ñaari yoon aji màkk goo xamante ni genn gi yàgg na tuuti ëpp na fukki at euh, Cheikh Mamadou Lamine Baara moo ko fa yabaloon. ak aj geneen goo xamante ni yàggul dara ndeysaan ci at yu mujj yi rek Cheikh Sidil Muxtaar mbake mu baax moomu mooy ki nga xamante ni moo ko fa euh, boole woon aj gu neex a neex nga ne safa doxandoo nañ lu bari ba ci sax maa ngi fàttaliku bu ñu sànni jamra yi dama ko daan nit da lay woone la xaar ma xaar ma bu ko sànni ji bàyyil euh, ba ma ba ma koy def nga ñëw ànd ak moom gunge ko euh, loolu muy lu am solo lu am maanaa lool nga xamante ni tey Makka des na ci moom lool waa Makka ku fa mos a nekkit muy taalibe muy ñu yoroon aj Makka gi ba léegi jàpp nañ ko lool ndax euh, fonk gum ko fonk ak jàpp gum ko jàpp lool tax na ba bu ngeen seetloo ci at yi weesu bi ñu def euh, conférence bu mag boo xam ne waa bi ñu dénk aj gi si docteur Abdou Aziz bi jiitu ko ñoom ñoo ko doon def si Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha bu ngeen ko seetloo moom la fa yebaloon keroog discours na fa discours boo xam ne am na solo lool mooy nettali nañu histoire yoonu murid ak aj Makka waxeen wu am solo boo xamante ni kiimaan la tàmbale ko sëñ Touba yéene ja jaar ko ci ñi ko fi nekkal ba ci waajuram wi nam aje woon ak nam ko fonk bi taalif ci ba ni mu ba ci jamono ji sëñ xalifa yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne aje nañ lu bari wax ci lépp rek ak am solo nga xam ne discours booba maa ngi fàttaliku ne yéewoon yéemoon na lool mbooloo ma fa nekkoon ba ba tey jii eh, dañ koy waxtaanee ba tey jii rek discours bu am solo bu fees dell euh, buñ dee wax kóllëreem ak yoonu murid ñëpp lu ko amal waaye xalifa bi nga xam ne moo ñu fi ab xaaj la woon ci moom suñ Mamoor mooy day mel na ñoom ñaar ku ci nekk ki la kullun minhuma juz'un la waan an saahibihi noonu la ko Cheikh Mountakha jàppe woon sëñ Mountakha sëñ Mamoor nekkoon sanadam nekkoon awnam nekkoon mustashaaram li ma wax mooy mu dénkoon ko li nga xamante ni ci lim gënoon a mooy kenn du lim gën a fonk la waaye mooy liñ gën a fonk ndax yoonu murid yoonu alxuraan la koñ fi dénk alxuraan dénk la daara yi di la saytoo waale yu mel noonu kooku xam nga dénk nañ la liñ gën a sëñ Mountakha fonk ko lool seere kenn du indi détails yi loolu dafa bari waaye seere su mujj si rek sëñ Muntaxa la mujj waxal téléphone te gis ngeen mujj gi mujj wax ak moom téléphone sëñ Muntaxa du woo ko ngir wér di ko wala seet waaye da ko woo ngir di jox ndigal lenn lu jëm ci liggéey bi mu ko doon liggéey la moom la mujj waxal téléphone doomam sëñ Moustapha nee na ma jàpp na ne bi mu waxee moom ak bi mu dogee ëpput ñaari waxtu wala yu mel noonu xam ngeen ne loolu rek doy na sëkk kon bi mu wéradee ca ci yoon wu njëkk way te nekk Ndakaar ba tane ba nekk ci kër gam nekk gis naa sëñ Muntaxa doxe noo xam ne bëriwul lu ma gis mu di ko def mooy jógee na fa mu dal sëñ Muntaxa fa mu nekk ci yoon waxoon yoonu secret la guddi ñëw fekk si sëñ Mamoor fi mu nekkoon ci an Maris loolu dafa daaneel sëñ Mamoor ab jël keroog ba fa jógee woon ma ci guddi gi dem naa gis ñuy waxtaan mu ne ma sëñ bi de moo bett tey ñëw ci kër gi yëguma ci lenn moo ko dox ba xam fi ma nekk mu ñëw seet si ma guddi wax la aju lépp ne nag wax ma wax ju pëstee fa ne ma nag xame naa ci ne dama doon yëkkati wér digg xaw ma lu may daane la te waaye wóor na ma ne dinaa delluwaat ci jàmm kon ca nam ko waxoon ne la amee dellusiwaat na ci jàmm boobaag léegi mi ngi bëgg a yàgg defe naa dund na fi ay weer yu bare bare bare def na lu baax lu bare euh, wax may lu pësteefu ne ma li ko sëñ bi na lu bare bare bare àndaale ko bi ñëw ci ci ci ci ngir di ko seete ak di ko jàppale ci faj mi waaye sëñ Mamor defaat yëfi pësteef xam ne du laal alal ñu mel sëñ Touba da koo delloowaat jëlaat lu bare bare bare bare lu xaw a toll noonu jox ko ko loolu foofu doy naa yem euh, maa ngi wax ne mag ñi yoonu rek ñëpp noonu leen jàppe woon ji ànd ak ñoom ci taalibe ànd ak ñoom ci pas-pas ànd ak ñoom ci bëgg leen ak weg leen ñu ci doon ay baayam ay baay leen jàppe ñu ci doon ay maamam ay maam leen jàppe ñu ci doon ay sëriñam ay sëriñam leen jàppe magi taalibe yi yëpp it moo xam magi taalibe yi kër Sëñ Fallu ak yeneen cër boobu la joxoon ci ñoom Sëñ Fallu loon xool ci ñoom da nga ko xam loolu det ak xaw naa biiree tuuti waaye ku mënoon a sonn ci ñoom la ku jaxasoo woon ak ñoom la am na mbokk magum taale bi mu baax a baax du ma fàtte mukk wér dem gi ni ci daan sonne muy baa yànq bu fay sonn ci lool ndeysaan keroog bi mu génn àdduna maag sëñ Maamoor ñoo nekkandoo màkk fa la ma ko waxee ne ma suñ sama suñ maam sa maam xaw ma sa bàyyi ba de doy na waar wax ma di xew ma ne ko ah, jàmbaar nga de wàcc nga ma ne ko waaye la wóor na li nga def de neex na sëñ Fallou mu ne ah ñooñu kenn mënu leen a fay ñooñu kenn mënu leen a fay taril ma bay yooyu wax fi li man banaw bi naa ahar rafiq waxfir li man amarahum bihi jami'an ne ma ñooñu ñooy mag ñi ñooñu ñooy gaa yi ne ma sonn ci ñooñu nga war a sonn noonu la ko nekkee woon ak taalibe sëñ Fallou yëpp waaye noonu la ko nekkee woon ak magi murid yëpp ak mbokki taalibe yi moo tax loolu seere si rek mooy amutoon frontière ak kenn képp ci ñoom koo gis amoon nag moom jokko goo xam ne gu jokkoo la wax naa léegi sëñ As Jaxate cër bi mu ko joxoon fonk ko lool jàppe woon ko sëriñam warmaal ko lool lool lool nee naa la bis bi mu fi jógee rek yónni na nit ci moom mag ñi ci desit muy mag ñi nekkoon ak sëñ falu noonu la leen fonke woon warmaal leen lool jox leen cër lool ndeysaan daana ma nettali lu lu lu lu daw yaramam muy kenn ci waa këram yi soxnaam su mag ku baax la woon soxna Safiyatu Diop mooy di mbokkam mooy waajuru tey ki nga xam ne tey moom lañ koy xoolee sëñ Moustapha ak lenn ci njabootam nee na ma bi mu fi jógee de dafa diisoon lool ci moom ndax kooku dafa nekkoon lépp rek nekkoon soxna nekk taalibe nekk lépp nee na tax na ba. gis na mag ñi doxe ci moom noo xam ne nee na wàcce woon na ko yombaloon na ko lu bari jox ma ci misaal ne ma biñ koy jul bi mu génnee àdduna keroog ne mu bàyyi sëriñ moo dem taxawu ko moo ko jullee nee na moom demutoon xam naa ne ci li ma dégg ci yoo xam ne waaye nee na ko jullee ba noppi dafa génn ñëw jubal si kër ga loolu nee na réyoon na ci moom lool bañ ko ne ñëw na dafa génn gàttantu ko ne ko doo wàcc xam naa màggee na tuuti booba nee na ndeysaan mu ne ko ñëw gi jublu ma ci lenn xëy na du ma ko faral di def lu bari waaye kii fi jógee xam naa ni mu demee woon ci yow wax nga ma fi mu la féete woon euh, ma bëgg a ñëw rek ngir waaye falal la la ko ak ak ak it nag leeralal na la wax leeralal na la fu la féete woon yàlla dana la féete fu ko raw euh, daana ma wax ba tàyyi moom sëñ Maamoor ne loolu lu wér a la gëm na ko sant na ci yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax daal alhamdulilah ci ni ko yàlla mujj melal. wax na ma it lu neex nee na ma it bi bàyyi sëriñ dem mi ngi seetlu na ne sëñ Ahmad sëñ Ahmad Mbàkke sëñ Modou Moustapha dañ ko an wooye sëñ Ahmad def na lu mel noonu dafa mel ne daal nee ma mu ne ma ñaari jéego yooyu nag gis na ne wàcc wàcce na ci ñoom lu bare bare nga xam ne day mel ne sax booba mbooloo ma nga xam ne ña nga woon ca barab ya ñëwaguñ magi taale bi yëpp noonu leen fonke woon euh, mos nañoo ànd ci kenn ci samay mbokk waa Daaru Ndiaye dëkkub sëñ Baalu Ndiaye booba seen xalifa moo gaañu woon sëñ Afe Ndiaye sëñ boo yebal ko fa bañ gi wax ko fiche nekk sëñ Fallou Baak ñu tudde ko ñoom dindi ak yu bari am na lu ma fa dee loo xam ne du ma ko fàtte ma ko dane ma maa ngi yow de buñ nekkutoon doom ci sëñ Fallou it nekk ay taalibeem <laughs> ne ma nag loolu nag day mal ne kon ko sëñ te bañ sañ na ko mooy ma ne ko ah, li ko wax dégg naa bu baax a baax ne ma daal xam xam xam nga ko baax ma ne ko noonu la fonke woon ñëpp Mauritaniens yi noonu leen jàppe woon keroog bi mu fiy jógee te fekk ñu Mauritanie ñoom ñëpp dañoo dajaloo ñëw ndeysaan fekk suñu foofu ñu daloon muy Cheikh Mouhamed Salimou Liye daal muy imaam Sarsara muy cheikh Gileegum Buld Ali muy Abdourahman ndeysaan ku ci ne rek seen kàddu yi benn la yàgg na leen a teral yàgg na leen a fonk maa ngi leen di wax rek ko xam ne ku ñuy wax Abdourahman xam ngeen ko Abdourahman jeng lañ koy woowee ñun Abdourahman ab murtanien la xam naa ci laay teje wax ji nekk ku baax nekkoon taalibe sëñ Fallou ne teg sëñ Fallou ba noppit euh, gàddaay fekk sëñ Fallou nga xam ne mi ngi ci dëkk bi ba léegi mag la loolu léegi bokk ci euh, famille bu mag muy banu deymaan Abdourahman moomu dey ndeysaan fekk ko fi ma ngi ko fekk Murtani waaye mbokkam mu ko jege nee na ma bi mu ko yëgee ci wér la ko fekk waaye jaxase na ko lool nee na de àdduna kenn desatu fi comme Mamor dem na waaye lam wax li ma ci gën a yéem mooy nee na gis na sëñ Mamor ci booba yëgagul ne faatu na waaye xam naa ci bis guddi googu la wala guddi ga ko jiitu bokk na ci lim gis ci moom nee na mu ne ko Abdourahman damay dem man damay tukki damaa bëgg tukki. xam naa man la ko koy tàggu ne ko waaye yow foofu sa kër la junj ko it ne ko njaboot gaa nga fa ba ma ko déggee ma ne ko ah loolu de na loolu wax ne ak yeneen yu biire yoo xamante ni kenn du ko wax fii sama beneen xarit euh, ku baax sëñ Fallou moom sëñ moodu moom sëñ Abdul Xaadir ndeysaan démb rek mi may wax lu daw yaram loo xam ne sëñ Mamor ko waxoon ne sëñ bu mag bi da ko feeñu woon ne ko maa ngi lay yëgal waxal njaboot gi sama njaboot gi ne leen. li ma leen di diggal rek mooy li ma leen daan digal nañ jaamu yàlla cay def lu baax di bàyyi lu bon teg ca baat bu diis képp koo xamante ni defoo loolu de buñ la boo duggee ci bàmmeel da nga xam ne man foowuma fooluwuma fooluwuma sëñ Mamor ci yaram ci ak taalibeem tax na ba message bi for na lool waaye waxoon na ko ay nit rek ay benn benn nit sëñ Falloum sëñ Modou sëñ Abdou Khadir bi bokk na ci waaye bi ma ko sëñ Fallou waxee démb rek dama ne ko loolu day ah, lu wér la ndax sëñ mamoor de bàyyi woon na xel loolu message boobu noonu la ko jàppe woon noonu la fonke woon kilifa yëpp maal ñëpp bu yàggut rek ci am ndaje ci këram la amee woon ku faw génnoon àdduna xalifa sunu sunu waajur bu baax muy sëñ Moustapha mii nga xam ne mooy xalifa Mbàkke Kajoor tey ba mu ñëwee gis naa cër bu ko sëñ Mor jox lool warmaal ko fonk ko lool jox ko bang bi ci ndaje mi am ku ma deey ci bokk yi ñu toog jàpp naa loolu ne Cheikhouna Sall la ne ma kii kan la ma wax ko ko man waaw ma ne ko lu tax nga laaj ko man ko man ma damaa gis sëñ Mamor ni ko màggale nii rek ba mu ma dee ko ne ko sëñ Mamor ab école la del xool ci moom lu mu def rek lu war lu mat a def la ma ne ko kii mu màggal waajuram la baayam la ci sëñ Mamor amul jafe-jafe loolu ma ne ko ku war a màggal lay màggale gis naa mu doxee noonu ak sunu baay bu baax sëñ Ablaye Bousso sëñ Omar Bousso gis naa mu doxee ko ak sëñ Bassirou Anta Niang jotaay bu ñu mos a fekk xam naa am na ci ñu ko xàmmewut waaye ni ko sëñ Mamor Kare su mi mbaxana mi màggal ko ñëpp xamee nañ ne ñëpp dañoo daal ne kii kan la loolu kon noonu la doon doxee maanaam kon day mel ak taalibeem moom moom la jiitaloon ci lépp kuy baayam baay la lay jàppe kuy magam magam la mag la lay jàppe kuy ku mën a doon rek cër bi nga xam ne am nga ci loolu nag muy lu ko lu am solo noo xamante ni moom ci maamam jëla ko jële sëñ Touba noonu la ak mbaaxam kawe na lool maa ngi ko euh, lii sëñ basum sëñ Murtala taxawal ñu koy wax manaahilu safiya mooy lu mu taxawaloon ngir di ci dimbale daaray alxuraan yi keroog bu mu koy taxawal sëñ Mamour mii la ci jiital ngir gis sëñ Mamour xam ne itteem jëpp loolu la ñoom ñaar sax duñ soree ci at ndaje yu njëkk yee ñoo ko daan ànd sëñ Mamour léeg-léeg këram lañ koy defee man ak moom sëñ Bas sëñ Mourtala Fall Daoud Bari sëñ Basum sëñ Abibu daanaka noonu rek la foofu rek la daan yem euh, këram defee nañ ko fa ba tàyyi ci daara ji defee nañ ko ndindi defe nañ ko kër sëñ Basum sëñ Mourtala waaye moo joxoon bayit wii ma wax léegi wajaal bi jaahil Moustapha Hayaati raayatul Quraan zil ayaati ne nañ ko ko def muy symbole muy muy muy nañ ko def muy chiaaru mbooloo mi euh, maa ngi koy tëje nag lu am solo sëñ Mamor mënuñ ko fay ñun ñi nga xam ne xamoon nañ ko di bokkam yàlla dogal ñu doonoon xaritam mu doonoon suñu kilifa doonoon suñu yoruwaay ndax li ëpp solo ci àndal la doon def mooy lim bëggal boppam la lay bëggal gis nga ñooñu muy àndal muy sëñ Ilimaan Gay muy ñeneen ñëpp muy ñi ko miinoon ku mel ni man ak keneen dogg alxuraan bu muy def dogg wérd xasaayit bu sañoon da koy def dana la ko digal dana la ci soññi am na ci ñoo xam ne da leen daan woo sax léeg-léegi ak jàngandoog ñoom lenn tàmbali jukki bi ñu tàmbali jukki bi xam ngeen nag ànd bu mel noonu yombut mooy euh, nit koo xamante ni li nga bëggal sa bopp mu nga koy bëggal ca noonu la doon doxee ak ñoom sëñ daara ji nga xam ne yàlla dogal na yàlla nattoo na ma ba ma ma bokk ci li mooy liggéey la euh, diine ji mooy daara ji nga xam ne am naa ko ci Touba jàppal ni sëñ Mamor ci la tàmbalee ci lay am biñ koy tàmbali ci ab yéen rek ne fa ñëw na fa ba tàyyi bi mu noppee niki noonu ñëw na fa jàpp nam ca jàppee kenn jàppewu ko ci Cheikh Gueye ma nga xam ne moo jiite daara ja bi fi sëñ bi jógee yónnee na ma vocal bu daw yaram ne ma daara ji dey moom ci ñi jiitu ci ñu koy jooy la bokk ne ma ñëw na fi yoon woo xam ne fekkee woo ko xam nga loolu dara gën ko rëy ba mu jiite fa julli ba mu teral leen lool dajale ñëpp bañ dajaloo mu dénk leen jàpp naa nag noonu la ko defee woon ci daara jépp kon daal sëñ Mamor mi ngi noonu. Euh, yàlla ñu ko yàlla fayal euh, ah, euh, dundam kenn du ci doyal ndax ni baaxee woon waaye nag wax dëgg yàlla lu mat rek dafa mat sëkk rek lu mat rek kon noonu rek lay mën a demee li ñu wax rek ne li kulli shay'in iza ma tamma nuqsaanu kon nag day mel ne liggéey na ba noppi rek mën taa yàlla nag moo ñu ko gën a soxla ñoo ngi koy jaalee njabootam gépp njabootam gi ne comme ni ma ko waxee ay doomam ci laa koy tàmbalee sëñ Moustapha ak rakam cañ dal xel ci ñoom lool. ndax koo ci xool rek sëñ Mamor nga gis ci moom mag ka ca jiitu ba ci ki ci mujj ci xam-xam bi ci mbaax gi ci taalibe gi ci yaru gi waaye nag ci bëgg gi nit ak koo gis def ko di sa bopp loolu dalal nañ ci xel bu baax bokk na ci yàlla fayee sëñ Mamor ñu ngi leen di ñaanal bu baax ñoom njaboot googu ca di leen denk rek di leen wax la boroom xam-xam ba waxoon isal fata maata an irsin wa an kutubin wa kaana za waladin fal yaxfasil kutuba in daatil kutubu fal maarufu yatbauha fa laysa za waladan wa laysa zaka aba fal maalu irsan bi xukmi charci yaxsibuhu wa fi lxaqiqati in tanzur fala aqiba wal ibnu in xaazama qad kaana xaisahu min almaali abu xaqaqan nasaba sëñ Mamour bàyyi na leen dono doy na sëkk buñ ci dolli dara buñ wàññi dara nañ xool lam bëggoon ñu bëgg ko lam wonan ginnaaw ñu ko ginnaaw ci xanaa amut solo la laa laa leen ñoom ñooñ moom laay dénk ñun njabootam gi ci des gépp moom laay dénk mboolem jullit